xalawhu wa waddahu alxurabaahu mm-hmm. waa Quraysh ak niñ noonee yonent bi mm-hmm. ci la doon wax ne wasalahu niisu nañ ko mm-hmm. ñoom ñoo toog bëggatuñ koo gis te seen dëkk ba naan nañ ko sàkkalee pexe nii nañ ko sàkkalee pexe nii waxaan na bin ni gisoon feerab garab ilayi seen seen xëkk garab ak tàndarma di yuuxu ndéeg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëlbéen lislaam min barhamu doon dafa amoon benn xëkk garabu tàndarma benn garabu tàndarma dafa xëkk garab bu xam ne ci la daan wéeru de xutba bu daan xutba ci la daan wéeru de wax ak nit ñi biñ ne ba defar min bar nag bis ba mu bëggee bis ba mu njëkkee ci min bar bëgg a xutba gis nga boobu mu doon wéeru dafa yooxu ba ñëpp dégg ko mm-hmm. yonent bi moo ñëw taxaf ko mu noppi mm-hmm. mu delluwaat timin barba ñu ne su fekkoon yonent bi taxafu ko mm-hmm. kon day jooy ba wow day jooy ba jógee waaye ba yomal xeema du noppi xamu ma la ko waxee ah jël beneen lislaam boo min barhamu doon dafa amoon daggitu garabu tàndarma bu xam ne ci la yonent bi daan wéeru bu daan xutba bañ ba defar minbar nag mm-hmm. yonent bi ba mu nekk yeeg ci war a xutba mm-hmm. gison boobu mu daan wéeru mm-hmm. dafa yooxu ba ñëpp déggu ko yonent bi ñëw tatax ko mu noppi ñu ne bu du doon tatax boobale du noppee ci mukk dégg nga bu baax wasalawhu niisu nañu ko waxam na te bindi waaw seet loolu nag sira àll bi bi ne fii xam de sira àll bi bi ne fii xam nga ko bu duggee ci rang ci digg bi rangu ñetteel bi ñeenti téere yi fare ko nag Riyaadu Saalihiin ñetti téere yi muy tege nga jël ko wasalawu niisu nañu ko waxal na te bind ci doon darab darab ilayhi jëm ci moom waxalaw ñoom bañ nañ ko mhm. waa Màkka ñoo ko bañ def ko noon mhm. waddawoo soppu ko alxuraba way tumaranke yi ñu mhm. bokk daal moom dara te waa Medina damay waa Medina soppu ko mu ne axrajoohu génne ko min haa ci Màkka wa aawaahu te dalal ko mm. xaarun kur mm. wahamadu te xaar ko xamaamatun mm. bitaw warqaa bu raaji tuppint yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee war a dem Medina Medina nii la faree màkk waaye dafa génn war dëkk bi dugg ci xaaru Hira ba mu duggee ca xuroomu Abu Bakrin hmm. sama borom moo hebal cerbañ hmm. mu ñëw la ngeen leen tiim buntu xur yépp hmm. benn bi ñëw nen waa Quraysin nag biñ xëyee ba yëg na yonent bi dem na dem googu tiital leen lool jaaxal leen lool ndax xam nañ ne jaax nañoo moom fu ñaaw ñaaw xam ne mën naa dem feneen xam fa doole ñoo mm-hmm. song leen xeex pour fayu mm-hmm. te kon mën na métti lool mm-hmm. loolu di leen jaaxal la ah beneen ba ca topp moo di ñoom arab yëpp leen xormaal ndax ñoom la kaaba gi ne ci ñoom seen barab la ñoo xajee bi yàqu na te yonent bi lu mu wax ñu bëri dañ ko gëm waaw fu dañ fa loolu leen jaaxal ak fu mu a jaari ci àddina bi su ko defee nag fi leen gën a jaaxal na mooy mu dem Medina ndax Medina mooy yoonu Saam te Saam mooy markas bu gën a am solo ci wàllu tijaara su fa xamee doole gàllankoor leen ci yoonu Saam loolu waxuñu ne waaye day rëqal seen koom te wóolu fu ñu nangu jaaree fa ndax gis nañ daal hadi moo si mu laaj bu joxee mu mel ni am nag ñoom leen di jox ko loolu taxoon na ñu jóg parce que yéen fu mu mën a nekk ñoom lañ ko jàpp ko pexe ñëw nañ ba ci buntu xur bi àlla ñëw leen a gis waaye ñoom gisuñu yonent bi gisuñu Abu Bakrin mm. bi ñëwee dañu fekk benn jargoñ mm. mu la leen li wax xur yi yëpp yëpp mm. ñu ne leen li woon mm. xur yëpp. am jëm ku wax ne. Mm. inna fiha ankabootan mm. aqdama min muhammadin. mu ne axrajoo. génne nañ yonent bi. min haaji Makka. wa aawaahu te dalal ko. este, pero para منها أن نرجعه إليه صلى الله عليه وسلم كما تقدم دغه فوجيته ما دغه فوجيته خاينا ما صبو دلوسي تنو نغو غودي أنا يعني جل سوف ما يوقع جل من الإسلام يعني من من دار عاجل الله مثلا مثلا بنوكر من رفته عن keroog bi ñuy doon si jàmm rek ko leen ko ah ah. maanaam maa ko wane kay rek ko wane. bu yéen ci suñ koy rab ni pax mi tëddee nii dañ ko indi bi ci buntu pax mi nii ñu tëral ko wàccee ndànk nii bopp bi jiitu bopp bi jiitu wala mu war a tëdd nii. xam nga loolu la sax daanaka yéen itamit noonu lañ ko defee seetlu ba

فلما وقع القبر سلم من قبل رأسه وأنا أقول هم طلبنا الله كمان لأن نمر بوهم وانا ديجا وهم من بلاي ومولانا أخرجوه جنن منها wa ho ta dalar fahimtarun to wa hamar ho ta har fahimtarun ke ta walka guda ne kusa wa ka fado binatiya an ka ma ka fado hamamatul hasa'o ba min humu ala kurbin mar'a ومن سدة ظهور الخفاء ونهى المصطفى المدينة والساعة قد إليه من مكة الأنهاء وتغنت بمدي الجن حتى أطرب الإنس من ذاك mu ne wakkafatu fegal na ko hankabutun jargoñ dina jaa ci rabam maa kafaru la fegal na ko ko alamamatu kitab alal daabu daa ji bëri duma ci taw ma dafa ñëwoon defoon aar mhm. loolu du def dañ ci ya mhm. ndax du def ba ñu tekkaaraange la woon tekkaaraange la woon waxta ba nëbbu na moom yonent bi mhm. min hum ci waa Quraysin ala xurbi mara waxaar la jege ñu gisu waaye dikk nañ ba ci buntu xur bi de yonent bi janam ñoom mu Abu Bakrin jege leen lool da gis seeni jëmm de dégg seeni wax waaye ñoom taxut ñu mën koo gis min sifati gururi ci kenn ci tatak feeñ alxabaaru moom su dañoo feeñ bi wala tëdd ne wala bi am na ba ñetti fan dafay génne wanaha jiblu na al mm. mm. mustafa mustafa al madina ta madina yonent bi gannaaw leen la bàyyee ko ci xaaru hira jëm madina wasta fatte sopp ilahi jëm ci moom saha wàll yi min mm-hmm. makkate ci waa makka waa mm-hmm. makka ko génne mm-hmm. makka doon dëkk bu mu bëgg makka it dëkk boo xam ne bëgg ko ñu ko mu doxoo kene ku ko wax wa kayyin min qaryatin yaasuddu quwwatan min qaryatika allati axrajatka ahlaknaahum falaa naasira lahum ñu la génne nii am na fi ñu leen ëppoon doole ñu ne yàlla xaral nañ leen kenn dimbali bu leen liñ def nii ñu ci jëlee lu leen neex de lu ci jëlee lu leen neex de wanaa jublu na al mustafa mustafa al madinata madina wastaa xatte sopp ilay jëm ci moom alanaa wàll yi makkata ci màkk wataxan na du wéy na bi ma di ci taggam mm-hmm. al jinnu jinne yi xata mm-hmm. asraba ba bégloo mm-hmm. alin sa nit ñi minu ci yonent bi yooyu lay wéy jinne yi ñooy wéy di ko tagg ba nit ñi di dégg baati jinne yi wéy di ko tagg ci la war màkk xamee fu mu waaye xamuñ ko man sax nag fekk dafay dox ba àgg barabu ummu maabadin boobu soxla lekk moom Abu Bakrin mu laaj ko mu maabat mu ne ko soow xamu fi mu laaj ko ana gàtt yi mu wan ko gàtt boo xam ne benn gàtt mosu koo tëb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ratta gàtt bi te gàtt benn gàtt mosu koo tëb mu mën a am soow mu génne soow mu bëree bëri mu xam ne lam soxla woon mu ñu xam ne fajoo na ca ba bàyyil na ko ma ba dara jinne mm-hmm. yeneen bi ñëw yenente bi dañ ci tuddaale mooy gisa boobu ñu mm-hmm. xamee ci ne gannaaw jaar na ci barab ummu maabat mm-hmm. kon yoonu medina la jaar ndax xam na ummu maabat wala jazallahu rabbu naasi xayra jazaihi yàlla mi borom nit ñi yàlla na fay gën ci fayam rafiqay ni xalla xiimatay ummi maabati ñaari àndaw ñoo xam ñu nga wàcc ci xaymay ummu maabat دنيا وما نزلها بالهدى فاهتدت به من هو تنجب مجند يقوتينه فقد فاز من أمسى رفيق محمد كل هانجر محمد وقتهنا ليان أبا بكر سعادة جده وأمسى أصلا ولكنه من يسعد الله يسعد يعني كنت خليتها يا لولا جنة يرون bañ tuddee jaar barabu ummu ma ban nag mhm. ci la waa Màkka xamee ne mhm. kon yeneen Medina laaw mhm. Aji Malik si wax na ko ci xilaas saa mu ne wa ahlu makkata lawlal jinnu ma alimoo ay nan taa dar mal awtaari watta xam ne mu ne ko ñu